غير المغضوب عليهم ولا الضالين ñu ngi nuyoo bu baax di jiital nuyoo bi ci kilifa gi di ko sant bu baax ci taxawaayam ci mbir mu rëy mii ba mu tàmbalee ba léegi mi ngi ko ànd ak nun ñu ngi leen di seereel sunu kent ak moom ci liggéey bi kon jërëjëf président taxawaay bi gis nañ ko ci wàll yépp ñu ngi koy yàlla muy faye yàlla na ko fay ci barkeb Sëriñ Tuubaa gannaaw loolu ñu ngi sant bokk yi ñi nga xam ne dañ ñuy boole di tudd di tudd sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax ñëpp ñoom ñëpp ñëpp bokk nañ ko ànd ci biir ak ci biti suñ lépp nag ñu jiital ci liggéey bi kon noo ngi leen di sant bu baax la di sant nag mboolem taalibe yi kenn desut ki yaakaar ne moo ci gën a fegg ak kañ foog ne moo ci gën a kawe ci mboolem bokki taalibe yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax gis nañ yéene ji nga xam ne am ngeen ko ak pastéef bu wér bi nga xam ne am ngeen ko ak itte ju rëy ji nga xam ne am ngeen ko ànd ngeen ko ànd ak nun tàmbali liggéey bi ba mu agsi fii tey loolu amel nañ leen ci cant gu rëy di ko seereel borom liggéey bi rek jëmmi fii ñu toll nii tey tolluwaay la boo xam ne dafa aajowoo ñu gën cee yeesal sunu jaayanteeg sëriñ bi di ca fedd li sunuy laxasaay fas yéene gën a taxawu liggéey bii ku ne xam na liggéey bi ni mu melal liggéey bu réy la caaxaan eggalewu ko fii mu egg rawatina nag ci li nga xam ne moom lañ jëm ndax li ko eggale fii ab tàmbali rekk la la koy koy itte ja koy saytu. mu bañ dellu gannaaw. mu loo jooju itte mooy li ci gën a am solo. kon nan ko itte woon rek. tàmmee tàmbalee ni. àndeeku ni. kon yaa yoon waa nan ci gën a def yitte bu baax a baax. ndax li ci war lépp ndax dara bañ cee sooxe dara bañ cee taxaw ni ko borom bëggee woon rek jërë ngeen jëf nu ngi gën a santaat président ci taxawaayam ci niñ ko waxee woon rek biñ tàmbalee liggéey bi ba ni egsee fii noo moom noo ko ànd nu mu gën a diisee ak nu mu gën a sellee ak nu mu gën a rafete noonu rek lañu ko ànd ak moom nun la ko defee ak nun ñu ko nu ngi koy dollee sant di ko gërëm bu baax di sant nag mboolem bokki taalib yi yëpp alhamdulilah rabbil alamin kon léegi nag nee ñu jox kàddu gi sëriñ Bass mu eggale mu eggaleel ko bismillahi arrahmani arrahim alamin alhamdulilahi allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah ci ndigalul sëriñ bi ndigal li ma joxoon wax ma ne bu waxee kàddu yi ko ko kon na umul kitaab kon li sëriñ bi wax tënk na lépp dama koy jotle tuuti rek ay kàddu nuyu ak i ak ngërëm ak kàddu yu tuuti soññee jëme ci bokki taalibe yi mi ngi tàmbalee nuyoo bi nag ci président de la république njiite réew yi Macky Sall sëriñ bi nga koy nuyu bu baax ak mboolem délégation bi mu àndal bépp di ko sant ni mu ko waxee ci làmmiñam danaa ci dellusiwaat di nuyu mboolem ambassadeur yi nga xam ne teew nañ fi léegi te lépp mu mat ñeent fukk juróom ci ay réew yoo xam ne teew nañ fi ngir ànd ak sëriñ bi bis bi di sant bu baax mboolem këri diine yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo bokk liggéey bi te lépp lu muy def mu ànd ko ñoom te ñi seen ndaw teew na fi ñëpp sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm di jéggalu nag ci yéex a yëgle gi ndax sëriñ bi dafa waxoon ne diggante si ubbite ubbite gi nekk wootewu ko ngir nit ñi ñëw daa bëgg rek ñu yëg ko ndax xataay bu moo tax ku ko yëgut tam nga xam ne noonu la demee waaye ñëpp sëriñ bi boole na leen ci ñu ngi sant bu baax nag ñi nga xam ne ñoo moom ñoo bokk liggéey bii di njabootu Sëriñ Tuubaa yépp kenn desut fu ci amul ngant rek teewal nga sa bopp ku am ngant it nga ko la teewal kon nag sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ngir xam ne liggéey ba nga ko yëkkatee ba nëgg ni yéen nag moom yéen a ko ànd kenn ku ne def nga ca la nga man def nga ca la nga mën ba liggéey bi taxaw nii di sant it taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ña ci jiitu ndax taalibe yi kenn génnu ci di sant ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon ak Serigne Touba laxasaayu li topp ci ginnaaw sëriñ bi ba yoon wi agsi fii mu agsi tey ñooñu itam kenn ku ci ne pësteef ak yitte ak doogu ga maam ju tedd ji amoon amaan nga ko ci liggéey bi wane ko ci lépp loo xam ne Serigne bi yëkkati na ko nga ànd ko. ñooñu itam kenn ku ci ne pësteef ak yiite ak doogu ga sa maam ju tedd ji amaan nga ko ci liggéey bi wane ko ci lépp loo xam ne sëriñ bi yëkkati na ko nga ànd ko moom kon nag seriñ bi nee na ñoo ñëpp mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan ci barke sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo leen taxoon di jëf kenn ku ci ne loo ci jëfoon rek yàlla ko sëriñ Tuubaa bu loolu jàllee nag sëriñ bi wax na ginnaaw boom jottalee cant yooyu ak ngërëm bi ndax wax ju du gudd ndax Cheikh Ahmadou Bari Mbàkke Cheikh Mamadou Fadel mi nga xam ne moo doon saytu lii ci wàlluk daara ji ak njàngale mi doon ko taxawu ànd ko doomam sëriñ maam Thierno moom sëriñ Moussa Bassirou ak mboolem ñi ko àndoon ñëpp ba ci Abdou Lahad mi nga xam moo yor liggéey bi ak mboolem ñi ci woon te doon barteelu ay bâtiment te ñu leewoon ko lépp te buñ ci tuddee waa Touba ca tudd ci wax yi su tarxee waaye ka ci jiitu nag mooy am di Xadim mi nga xam ne moo fi jëkk liggéey ak Serigne Cheikh Moussa Bakim bàyyiwuñ kenn sëriñ bi sant na ñëpp gërëm na waaye xam na lépp lu ngeen di jëf rek Serigne Touba ngeen koy seeral Serigne Touba mi ngeen koy seeral nag euh, lu ko waay lebal rek daan na ndax moo waxoon ne bu Abdoulaye Hadj Mbacké moo waxoon ne sëriñ Touba ñeewut bor daa am pay kon nag Serigne Touba mi ngeen doon jëflanteel yàlla na leen fay lu koy sa njort ginnaaw bu jàllee nag. nee na mi ngi soññ nag bokki taalibe yi ci ñu xam ne liggéey bi rey na lool ñëpp ci sonn ndax lii dafa bokkoon ci dénkaane Sëriñ Tuubaa yi ñu naa ko ci bi ñuy woote bis bi dëkk bii di Tuubaa dëkkub daara la waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wat tafahum kon loola bokk na ci naal yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha indi na tey muy liggéey bu rëy nag boo xam ne ku fi mas a nekkee sëñ Tuubaa def nga ko yitte def ci jom def ci taxawaay def ca lañ ca war def ba mu agsi fii tey ci ay loxoom kon ñu koy ñaanal nag fi barke sëñ Tuubaa yàlla suñu borom dëgëral ko kattanal ko ba sumb yi nga xam ne am na ko lépp sotti ci loxoom ba mu sumbaat yeneen sumb ginnaaw boo loolu jàllee nag sëriñ bi wax na ne na ñëpp laxasaaywaat te góorgóorluwaat te xam ne liggéey bi ci kanam moo ëpp fuuf li ci seen ginaaw ndax li koy tabax ba mu agsi fii li ko yor di ko saytu ba mu àgg ca fa mu ko bëgg ba bisu penc loola du liggéey bu tuuti kon lu ci waay jëfoon rek na gën a góorgóorluwaat te xam ne liggéey bi day door a tàmbali moo tax ñu ngi sant bu baax waa Touba ci kanam ci yitte xalaat jure ji nga xam ne def nañ ko léegi ba joxe téeméer million ngir gàttaloo ko simbi ci loolu nga xam def na ko di jeexale cant gi nag ci président ndax sëriñ bi wax na ma ne naa la jottali ak cant ci ak ngërëm ngir xam ne liggéey bii ni la ko waxee ci laam ñoom yéen a ko ànd ba mu ko tàmbalee ba nëgg ni ndax ba nga yëg déggee mu yëkkati kàddoom wax ne day bëgg a tabaxal sëriñ Tuba daara ju mag yàlla def mu yónni ma ci yow nga wax ma ne ma dama bëgg nga waxal ma sëriñ bi ne ko université bi xam naa ne rëy na lool waaye lu mu toll lu mu bari bari bu doon ñeent fukki milliards it damaa bëggoon moo bàyyee ma ko nguur gi defar ko buñ ko mënta def ci mel ni at ñu def ko ci ñaari at ba ma ko waxee ma ñëw ci sëriñ bi wax ko ko sëriñ bi jot la ca cant ak ngërëm xamal la ne day liggéey boo xam ne liggéeyu sëriñ Tuubaa la taalibe sëriñ Tuubaa yëpp war ca barkeeloon kon nga may ma rek lépp lu ci ay tabax nga bàyyi mu ànd ko taalibe Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne jaayante nañ ci ko def bu ko defee la ci res nag loo ca mën a def nga def ko fa sansa nga sasoo ne lépp lu jëm ci tali ak assainissement yi ak éclairage public bi fas fas nga def loole itam tàmbali nañ ko ñu ci biir liggéey waaye yemoo ca laata sëriñ bi di tàmbali liggéey bi ba mu ko wootee rek nga yëkkati un milliard jox ko ko addee ne ko sama liggéey yow bëgguma kenn di ci am seere ndax Sëriñ Tuubaa laa koy defal yemoo ci it centre formation bi nga xam ne defaat nga ko ci biir ay yeneen yéen yi nga xam ne lente yëpp ba ma la joxee kayit ba nga joxe digal ba ñëpp ñooñu jël nañ leen kon loolu lépp tam mi ngi la ci sant di la ci gërëm di la ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa ànd bi nga xam ne wóor na ko ne nee na Sëriñ la boole moom ci lépp loo xam ne nekk na ci nga ànd ci ak moom te xam ne sa yéene ci moom moom itam kon lim lay mën a fay mooy ñaanala Serigne Touba mi nga xam ne mooy borom liggéey bi lépp loo xam ne sa yéene ak sa bëgg-bëgg yàlla dimbali ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala